وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاي أحمد ذا سوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ما شاء الله léegi nag bëggoon xam au delà de téere yeeg yooyu bu weesoo téere yi nga xam ne moo nekk daara kaamil ndax am na yeneen i jumtukaay yeneen i jeexit yoo xamante ni mi ngi daaree kaamil yuñ mën a yuñ mën a wax. bi dafa am espèce su matxaf sëñ bi ku mën a fagu la ba muy xalaat musée yàgg na ndax <coughs> tey macha allah <coughs> Cheikh Mahamadou Muntaxa yàlla na ko yàlla na ko yàlla fayal digle nañ ñu taxawal musée ba sunu. sëñ Sërif Mbàkke moom Cheikh Mahamadul Fadel radiallahu yal na ko yàlla may kàttan ba mu eggale masro boobu waaye tabaarakallaahu si yeblaat ci biir saal boobu dafa def espèce bu musée bu ndaw za qurbin min allahi bijaayi ahmada za sawqin ilallahi الله أكبر مما كنت أفعله فلست أخشى ولا أرجو سوى الله